L'Ergue TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi ñu ngi màggal borom bi taala wa tabarak di ko gërëm bak. Dignan bàkk di ñaan borom bi jéggal nu sunuy njuumte jéggal nu rëcc rëcc noo ngi julli tey selmal ci ar rasul muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko ñaanal jàmm moom ak i sahabaam ak taabiina lahu bi ihsanin ila yawmi ddin mbokk yi comme niñ ko waxee woon noo ngi jël suwaat ci teggin yi aju ci wàllu aj xam ngeen ni lépp li nit du def ci kaw suuf te mu tudd jaamu yàlla dafa am ay teggin am yoon yooy jaar ngir borom bi mën na koo nangul taala wa tabarak teggin yooyu nag am na ca yoo xam ni balaa ngay dem lay doon am ci yoo xam ni ci biir yoon wi booy dem di aji waaye am na te yoo xam ne nag ca biir màkka la kon yooyu képp ku dogu ngir aji yal na ko yàlla wërsëgal jaam ñépp war nga koo préparer ndax kuy jëm ci lu am solo war nga koo préparer lu am solo bi ci jiitu mooy ki bëgg dem aji sopp nañ ci moom mu def ni ñuy woowee salaatul istixaara salaatul istixaara mooy julli tànnloo yàlla ndax yoon bi ngay jëm yoonu jaamu yàlla la kon nga xam ni li ngay uti ñaan ci yàlla mu barkeenal la ko loolu dana dellu ci istixaara bi ngay def ndax xam ngeen ni ñaan yàlla la loolu nag mooy boo jullee ñaari rakka nga jël ñaan bi gudd na nit lu ko ñor war na koo mën tàllal say loxo ne allahumma inni astaxiiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratika ba ñaan bi jeex soo ko mënul nga ni yàlla maa ngi lay tànnaloo ci sa xam-xam di la ñaan ci sa mën-mën lii nga may xéewalal muy aj bii bu gënee ci man yàlla nga ma ko yombalal su gënul ci man yàlla nga ma utal lu ko gën ñaareelu bunt bi ci teggini jëm ci aj war na képp koo xam ni dafa bëgg dem aj mu fexe ba jàng yan teggin la nit ki di tukkee yan teggin la nit ki di jéem su fekkee ni jàngu ko walla xamul nu ñuy ajee na fexe ba ànd ak mbooloo moo xam ni xam nañu nu ñuy ajee te mën koo contrôler ci wàllu ajam moom it mu fas yéenee mel ni kuy jàng ndax kuy jàng moom li ñu lay tegtal rek ngay xam waaye boo amee ñu la mën a tegtal ni yonent bi aje woon loola la ñu soxla kon mbir mi nga dellu ci borom xam-xam yu xam aj yu la mën a ubbee ana nan ngay ajee yow jullit bi ndax yàlla nangul la sa aj ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon sahaaba yi ni leen xuzu anni manasikakum falahalli laa alqaakum baada aami haada mu ne woon sahaaba yi jëlee leen ci man ni ngeen di ajee amal na déwén du ma ànd ak yéen aj ci déwén jooju la faatu sallallahu alayhi wa sallam beneen bi mooy bu fekkee ni da ngay jóg jour ba ngay dem war a jël sa avion nga déparé sa kër fexeel ba nga contrôlé waxtu wi te xam ko li jiitu mooy su fekkee ni waxtu wi ngay départ waxtu wu ñu mën a julli la bu dugg ci waxtu par exemple yaa ngi war a jël vol 17 heures wala yaa ngi war a jël vol heure boo xamante ni du heure bu dugg ci biir julli foofu su la neexee mën ngaa julli ñaari waxtu yu tegaloo lu mel ni tisbaar ak tàkkusaan waaye yàlla def na yombal ba aéroport yi léegi boo ci dem am na jàkka sunu aéroport bi am na ko insha allah su fekkee ni dem ngeen booy génn sa kër julli ñaari rakka muy salatul haja moy julli ngir say aajo ak say ñaan bo julle ba pare nga def duaa safar duaa safar moy ñaan biñu wara ñaan ci tukki kon ki aji war na ko jang xamni ni ñaan bi daf ko wara def su fekke ni defu ko ci kër ga wala mënu ko su duggee avion xëy na du ñàkk mu am ñu fay def lu mel noonu mooy taxaw def ñaan ñépp mun koo defandoo fa lillahi alhamd ñun yoon yi ñu koy def yépp saa bu ñu duggee avion balaa décoller danañ taxaw ci avion bi wax ak ñépp ne leen nañu ñaan ñaanu tukki fi ñëpp defoonoo ko mooy ñaan bi nga xam ne yonent bee ñu ko jàngal muy duaau safar ñaanu tukki di alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar subhana alladi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل من يان بو war ngaa góor góorlu yow mi bëgg aj tàmbale koo jàng léegi-léegi su ko defee bu fekkee ni avion bi décollagul am na waxtu yoo mën a julli ndax diggante bi yoon wi day yàgg ñaari waxtu mën na la cee def wala lu ëpp ñetti waxtu te xam ngeen ni diggante Sénégal ba Màkka yoon wu gudd la bu dee fi ngay déparé war a wàcc Turquie wala wàcc Émirats muy Dubai yooyu yëpp mën nga fa wàcc waaye yoon bi tamit mën nga cee julli julli nag ci avion boobu julli ku toog <coughs> ci chaise ñoom ñoo yem fi nga toog mën nga faa jullee bu fekkee ni avion bi amul bërëb bu ñu mën a jullee boo toogee dem ba yëg ni waxtu jot na waxtu yooyu nag dafay aajoo nga xam waxtu yu ñuy julli wala ngay laaj bu dee avion yoo xam ni compagnie yi ay jullit ñoo koy diriger en général dinay am horaire boo xam ni waxtu wi dañu la koy xamal su waxtu wi joxee fi nga toog mën ngaa li xam ci waxtu bi nga bëgg a julli kàbbar julli fi nga toog laa sakka ni amoo foo dëpp sa jëm kon da ngay julli julli ku amul fu mu dëpp jëm ni ngay jullee boo toogee ci siis incha allah noonu la koy def bokk na ci nag balaa ngay dem di aji na nga bind sa testament ndax tukki la boo xam ne dafa bëri coono te lu lekk daf am léeg-léeg ñaata yoon ngay dégg ku dem aji yàlla dogal mu faatu fa ci ay coono ak it leneen loo xam ne dogali borom bi la kon bindal sa testament bokk na ci mooy bind sa testament mooy yi nga soxla yi nga bëgg yi jaadu yooyu da ngay góorlu nga def ko waaye beneen bi bokk na ca mbokk ginnaaw boo defee loolu nga xool say bor ndax kat nit du mën a aji te fekk mu amee ay bor yoo xam ni alalu jàmbur la te nga war koo mën a fay te lii nga yor pour ajee ko xam nga ni moos mën naa fay say bor kon su boobaa fay bor moo gën a nekk farata soo demee aji te amee nit ay bor yoo xam ne yu la taxawu la te fayoo ko sa aj du nangu kon prépareel ay boru jàmbur nga fay ko amaa bu fekkee nag ay bor la yoo xam ni xëy na du yu bari tax yu demee noonu te xëy na àggul ci nga yaakaar ni mën na laa empêché ba tey mën nga koo bind ci sa testament te ut ñu la ko fayal encore bu fekkee ñëwuloo beneen bi bokk na ci yow bi bëgg a dem aj mu def nag li ma waxoon sànq ci bor bi waxoon naa ni ku amee bor danga war a fay say bor pour war a aj mu def nag ki ñuy yi te amul lu mu fayee boram maanaam nit a ngi nii amel na ay nit bor jékki ñu may ko billet màkka wala kenn ci mbokkam ne ko defal naa la pour nga dem aj xam nga ni foofu lañ ko defal du aranu boppam kon su boobaa na bind testament xam ni bor yu mu war a fay la bu fekkee ka koy defali aj mën na koo dimbale mu fay ay boram fa li laayal xamd su ko mënta dimbale mu bind lu mel noonu juróom benneen mbir bi mbokk yi ci kii bëgg a dem aj yi te lu mat a xam la nag mooy àqu jàmbur yi nga delloo ko àqu jàmbur yi delloo ko loo jëlaloon nit wala loo xam ne da nga koo sàccoon jëlee ko ci nit wala nga triyande ko nit war ngaa xam ne loolu da nga koo war a delloo balaa ngay aji par exemple biir kër gi am na fi matériel boo xam ni saa boo ko xoolee sa xel dem ci jëloo ko woon ci yoon te xam nga ki nga ko jëlee ci moom wax dëgg yàlla balaa ngaa aji war ngaa mën a am ngorug delloo ko ay yëfam ndax raddul mazalim dafa bokk ci li ñuy soxla ñi nga amee loon àq te nga xam ko nga baalu leen ñi nga xamul nga baalu leen loolu dafa bokk ci li nga xam ni nit ki buy dem aji war na koo waajal juróom ñaareel bi nga fexe ba li ngay ajee na nekk alal bu lew na nekk alal bu dagan na nekk alal boo xam ni soo ko xam nga ni lii sa alal la maanaam xaalis bi ngay ajee na nekk alal bu lew bu mu nekk alalu client bu mu nekk alalu naxaate bu mu nekk alal boo xam ni yow xam nga ni alalu njuuj njaaj la bu mu nekk lu demee noonu beneen bi nga xam ni yonente bi sallallahu alayhi nee na inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla day ku teey la ku laab la du soxla lu dul lu teey lu laab mbokk yi bokk na ci nag juróom-ñetteel bi ci bëgg a dem aji ne yëg ni la muy def jaamu yàlla la na ko def te yàlla tax maanaam ay yaqsuda bi hajjihi wa umratihi وجه الله والدار الآخرة نجبل تي أجبي يالا رك رك موتخ نجي دم أجي وي موك بول أجي نجير نتو ديلا اللاجي ولا أجرم بول أجي موك نجير جاكوني بانيخ لا ناكو دم دفي kon fexel ba la ngay dem def muy jaamu yalla def ko te yalla tax ndax innamal a'malu binniyat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neene mbir yi ci yéene yi lay sottee kon li nga bëgg a def muy aji soo ko mënee nëbbu nga nëbbu ko su mënta nëbbu na fekk yow sa jëmm ak sa cër na yàlla rek tax nga def ko ak bëgg yàlla jéggal la ndax xam ngeen ni aj day raxas bàkkaar ba mu set wecc wecc wecc wecc kon kiy dem aji na góorgóorlu ba teggin yi mat su ko defee su demee aji yàlla baal ko bàkkaaram mu mel ni kuy doog a juddu su ko defee loolu nag nga moytu ci aj bi ut ci àdduna wala àddunay kese wala ngistal wala puukaréew loolu na ko moytu ndax li ngay préparé pour ajee ko war nga koo def te yàlla tax ndax xam nga ni lépp loo def te yàlla taxul borom bi dala koy delloo mbokk yi bokk na ci nag fukkeel bi soo bëggee jóg nga dem aji da nga moytu wax lu sa yoon nekkul dugg lu sa yoon nekkul na nga moytu xuloo na nga moytu xasante na moytu dàggasante même bu ñu la tooñee fexeel nga muñ te nga baale ndax ak dafa am ay bërëb yu metti yoo xam ni loolu dama koy tuddee nattu yàlla mooy gis nga jamono bi ñuy tawaaf di wër kaaba gi ci jamonoy aj ku àndul ak sang-froid ak dal ak xam li la yëkkati soo deful ndànk fa la sa aj ndax xam nga ni moos ñëw di wër kaaba gi ay millions yi doomu aadama comme yow bokku leen nationalité bokku leen niroo te jubluwaay bi yépp nekk benn mooy soo koy def xamal ni nit mën na laa tooñ te du ko xam te du nekk jubluwaayam waaye yow sa intention bu mu nekk lu ma waa def moytu mukk ni kii xeet sàngam la nangam nangam te sénégalais yu bëri dañ koy def da ngay def kii naan ñëw naal ni ma ma ko te dama ko ni tuy mu xam ni maa ko gën a dee xam nga ni ku nekk ci ngir aj ngir bëgg yàlla jéggal la ngay nekk fa di dóorante ay kurpañ ak di buubante te wallaahi day am da ngay gis ñuy tawaaf di wër nga seen ñaar ñuy xeex poñante mel ni ñu nekk ci marché léeg-léeg nga gis kii di làkk lii kii di làkk lee yow li ngay mën a jéem a liyaarante ak ñoom ba ba ba dalal ndax lii leen yëkkati dafa ëpp lii ngeen ñëw bëgg yàlla baal leen ngeen di xeex ci biir kaaba ci buntu kaaba gi di wër parce que dafa metti ndax jamono boo xamante ne nit ñaa ngi wër dafay xataxat ba sa tànk doo ko mën a yëkkati teg ko moom kay nii rek ngay mën a doxee nii rek comme comme doxu kàkkata rek nga mën parce que da ngaa sës ci nit nit sës ci yow ci góor ak jigéen loolu nag soo amee nag soo fois tey yoyoo léeg-léeg nit dina bëgg aar ñi mu àndal ne nii loxoom fekk jubluwul sax pour gaañ la mais dafa bëgg ki mu jiital bañ mu gaañ par exemple mu ànd ak jigéen wala mu ànd ak papaam màgget te nit ñu xees xees si nit ñu weex ñi loolu dafa bëri ci ñoom surtout nag asiatique yi dañuy bëgg di ak di ajaaleel seeni màgget màgget moo xam ne daanaka mënul dox foo kooku li jaadu woon mooy ñu utal ko bërëb bu mu ajee fayal ko ñu ko tawaafal wala ñu teg ko ci ay chariot nga fay mais soo buggee ànd ak màgget mu toll noonu mënul dox te mbooloo mi kenn du xool kenn suñu dalee ci kawam da ngay bëgg a agir da ngay bëgg a met léeg-léeg nit def nii loxoom pour aar ci mu àndal mën na laa dal ci gauche wala mu dal la droite nga jàpp ni moo ko tey yu mel noonu sans fois boobu yow miy aji loolu il faut nga sóor su la sa jikko jegee rek boo defu ndànk sax ak yàqu parce que nit day def nga foog ñi dafa def pour maa koy jàng wër bay jeexal juróom-ñaareelu tuuram war a génn en général fu nit ki jeexalee bay génn da ngay gis mu def nii loxoom pour ñu may ko yoon mu jàll léeg-léeg nag mbooloo mu ànd xamuñu la xamoo leen léeg-léeg ngay bëgg a def nii pour jàll kenn foog ni da nga ñëw pour gaañ moom mu ñëw rek seen la bu ko defee ngeen lëngoo foofu xëccoo waxante ay kàddu yu ñaaw seytaane ci foofu lay profito moo tax ñii aji pour ñu xam lu mel noonu ñu bàyyi wàllu xeet wàllu xeet kii naar la ci chinois la wala sénégalais yu jigéen di aj léegi ay yow xoolal kii ni mu gàttee kii dematu sax un mètre façon nit bu ne di nga ko gis mais da nga damay ko a jàng ma ne man sénégalais xaw ma xaw ma lan la quoi da ngay ci biir aj bi da ngay wax a wax a wax wax ba da ngay sonn mais nag da ngay xam ne ñun ñun xeet lañu boo xamante ne ñu spécial lañu waaw kon nag foofu li nga mën mooy wax rek di jéem a yee nit ñi di leen di leen delloo sa ginnaaw léeg-léeg nga gis mbooloo moo xam ne dañoo ànd bugguñu tàqalikoo bugguñu tàqalikoo ñu def benn fil ñoom ñëpp góor ñi wër côté bii jigéen ñi wër côté bii digg ji ñu néew doole ak jigéen ñi nekk ñu aar leen yow boo bëggee jàll ñoom dañoo jàppante mënoo dugg foofu kon su boobaa comprendre ne li nga bëgg la ñu bëgg defal ndànk nga def say tuur beneen bi yawmul hajjil akbar mooy gën a metti mooy zuuru aj bi foog nga xam ni kaaba gi kaw ba suuf day fees tet tet tet tet tet wallahi foofu mën nga fay wër am fa une heure de temps te am chaque fois ndax ni muy metté kon lolu yow mi waaja àddina nga story yu mel noonu beneen bi arafat nit ki mën na ag ko xamne bu deful ndànk xolam jóg ndax li nga bëgg la ñëpp bëgg rawati na musdalifa kon li la tax jóg dem aji investir alal bu bari da nga xamne yàlla subhanahu wa taala ne faman hajja al bayt fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fi lxajj borom bi nee na kiy aju na moytu nag kiy aji bu mu xuloo bu mu saaga bu mu fayyu bu mu ton yàllaa ko wax de ci alquran képp ku jublu aj bul xuloo bul xuloo mooy bu ko sookee bu ko keneen sookee ñëw ci yow jéggal jéggal ko te gis nga dafa am façon euh, jëfin yoo xam ne boo ko defee xeet boo ko def da koy xam par exemple daw nga nga féel daal nit du sa intention kooku wëlbatiku nii la boo amul làkk làkkam mu ni leen biir dënde soo defee nii sa baaraam rek loolu dama ko seetlu ci biir ak xeet yépp xeet yépp ku ci jot ak yow peut ci tàng xolam wala ñàkk xaram boo defee nii sa baaraam ne ko nii rek sàdd li mu tekki mooy sabab baal ma baal ma xeet yépp ko xam chinois anglais africain koo ko def parce que bokku leen làkk waaye nga taxaw di làkk fii di yuuxu moom muy làkk fee da ngeen di sonn bu nga déggal dëwle kon su boobaa defal geste bi tax mu xam ni yow amoo benn intention ci yàqal mais li ngay def yowit bul ñàkk fayda bu dem aji ba pare nga bëgg a nekk fa di xulo xulo bi ça ne sert à rien du la kon loolu dafa bokk ci teggin yi nga xam ne dañ koy xam waaye beneen bi mbooloo bi nga àndal nga yërëm leen nga yërëm leen te nga yëg ni aj nag boo demee aji dafa am organisation yu fa nekk yoo xam ne il faut nga respecter leen foofu dafay metti ndax xam nga ni kaaba gi su feesee dañu koy tëj ci suuf ci suuf mooy wër gis kaaba gi jàkkaarloog moom tout le temps day fees am na premier niveau deuxième niveau troisième niveau premier niveau moo gën a yaatu mooy premier étage bi deuxième bi moo gën a yaatu premier bi troisième bi gën a yaatu deuxième bi mais ñun nga gis ne buntu bi tëj nañ ko agent yaa ñu fa baare nañ léegi dañ koy baare bu fekkee mënoo jàll foofu xaram bi lépp xaram la foo toll julli yaa ci jàkkaarloo kaaba gi julli yéen a te xaram bi yaatu na yaatuwaay boo xamante ni adduna bi yëpp bu ñu fa dajaloon mënuñ koo feesal wala boog xëy na du fekk ñëw nga fekk tëj nañ nga bëgg a dem ci suuf mënoo jàll su boobaa foo nekk ci rek foofu rek ci xaram bi la toogal foofu nga jullee foofu mu des nag boo bëggee wër kaaba gi bu ñu tëjee suuf comme dafa fees am nga opportunité yi ci escalier yaa ngi bind nañ ko anglais français turki nga yéeg ci premier escalade xool fooy jaar buntu ba ngay dem pour nga nga defee foofu say tawaf parce que moo gën a yomb beneen bi lu bëri ci bu ñuy dem aj soo ajee ba pare ba nga xamante ni aj bi jeex la wala départ aj bi ñu ngi ci sori su boobaa naar yi dootuñu xàmme lu dul ko def xarmalam boo defee sa armal nga dugg dañuy jàpp ne yow da ngay ñëw di umra wala ngay def leneen mën nga dugg ci suuf mais bu dee da nga summeeku comme soo sooy yéere simple boo ñëwee ñu ne la jàllal feneen jàllal feneen bu fa nekk di bu fa nekk di xuloo beneen bi bokk na ci nga fexe la nga yóbbu ci ak mbokk sa hôtel fa ngay dal na yëg ni yàlla moo la yóbbu na la yàlla tax li ngay def bul dem aji topp wàllu adduna moytu ko li nga def ci alal daa bari li nga def ci dafa cher toppatoo ko sàmm bul aju mukk nag yóbbu wàllu partisan comme ni ko yenn sénégalais yi defee di aju ne man tariqa sàngam laa bokk sabda yow ki lay jàngal ak sax doo xam kan mais soo muytuwul da ngay jël sa affaire wu euh, par yi ñu taamu fii ci Sénégal loolu ci aj amul ak jaamu yàlla la boo xam ne ñu ko yent bi defee nañ ko war a defee waaye nii la ko diw defee nee la ko diw defee woon diw diw dafa aj comme yow rek moom dafay wax ni jàng yi alquran jàngale sunna su ko waxul ñu bàyyi loola jéem a def leneen insha allah waaye mbokk yi góorgóorlu say waxtu yëpp dee ko jullee ci xaram ba soo ko mënee soo nekkee Medine yëgal ni waxtu wi juróom dee ko jullee ji ci jàkka ji bi sallallahu alayhi wa nee na sama jàkka ji jullee fi moo ëpp doole jullee beneen jàkka bu dul kaaba gi junni yoon kon hôtel bi nga nekk tàng na waaye bu waxtu jotee wàccal demal ko julli Madina tamit moom Makka ñoo yem xaram bi yaatu na soo agsee biir fees na ci kaw fees na foo mën a julli nga julli ànd ak mboole bi nga julli ndax ak moo la yóbbu góorgóorlul ba day su ma demee ak naa ba du ma tànn benn yoon waxtu yu juróom parce que foofu waxtu yi ak ñun fii dafa am changement la nga doon xam fii ci waxtu ak ku bokkul mais defal sa itte sa réveil sa portable ba nga xam ban heure nga ndax mag nag su la farata taxee jóg da ngay xam ne tax a jóg lan la waaye nga dem aji ba pare nekk ci hôtel yi waxtu yi jot nga bàyyi dem di jullee sa bopp di def yeneen ñooyu dafa bokk ci yëf ñàkk fay na su dee mag mu màgget mënul koo comprendre nañ ko mais jeune ku demagul fenn yow nga dem góor góorgóorlu ba nga xam la la yëkkati nga di ko waxtu yi dee ko jullee ji foofa bu dee kaaba gi moom téeméeri junni yoon la moom moom téeméeri junni yoon ngay am tuyaaba ci waxtu bu ne mbokk loolu boo ko amee góorgóorlu yàlla defal na lu rëy ci sa yàlla nañ ko yàlla defal yëgal ni li la yëkkati ci at bërëbu ñaanukaay kaaba gi safa ak marwa arafat muzdalifa ko jamrat yooyu yëpp del ñaan say soxla di ñaanal jullit ñi del ñaan say soxla di ñaanal jullit ñi jamrat bu ñu fa tollee di sànni jamra ragalal yàlla nga xam ne lii du fof lii du fof jaamu yàlla la bul toog di imaginer rek ne lii nii la nii la parce que da ngay ñëw ci jàmm foofu tamit dafa metti lool moo kaaba ga ñoo yem ndax ñetti tuur la yoo xamante ni ci suuf la ñëpp di bëgg dem ndax moo gën a oyof mais foofu dafay xat parce que imaginer nga bëgg a jóge fii ànd mbooloo nga bëgg sànni sànni jamra te xam nga sànni jamra xeer bi ngay sànnee moom ñebbe ñooy tolloo mais léeg-léeg nga gis ay théâtre kat wala fokat yoo xam ne da nga naan ñii dañuy fo wala maatay la ñuy def nga gis koo xam ne day jël xeer woo xamante ni léeg-léeg bu ko xam ne day jël dàll seytaane kay tëgg naa ko pour sañ boo xam ne yow du dafa bon rek parce que nga parce que xamuñu lan moo léeg-léeg ngi koo xam ne day daw arrière bu fu ne daw a daw mel ni kuy def jeu ah. lu kenn xamul da ngay xool toog ba jàngal mais mais adduna bi vraiment diine ñu ngi koy commencé ñàkk teggi nii ñu ngi koy commencé ñàkk sànni jamra jaamu yàlla sànni bi du sa doole moo koy àggale mais yéene bi ak li ci borom bi nam loolu nga sànni say jamra muntu bu baax a baax te xam ne ak dafa mat mbokk yi ñu gën a góorgóorlu nag ci xam ni aj jaamu yàlla la waaye ñu moytu nag aj ba pare nag nekk ci yeneen ci wàllu àdduna dañ ko bàyyi xel surtout suñu portable yu demee noonu kon loolu mbokk yi maa ngi koy digal sama bopp waaye di ko digal ñëpp di ko fàttali ñuy aji ñu góorgóorluwaat xoolaat réviser waat seen am-am defaat tuur ci li leen tax a jóg ànd ak ñi ñu mën a àndal soo xamul. mën nga laaj masala bu la jaaxal ci aj soo ko xamul boo laajee incha allah nit ñi danañ la ko leeral kon maa ngi dénk loolu sama bopp di ko dénk képp ko nekk ci ñun ndax dajal lu mat sept millions war koo ajee nga dem nga yàq ko ci lu amul benn njëriñ loolu wax dëgg yàlla ñàkk solo la koo xamante ni yàlla rek moom moo xam li mu toll yàlla bu ñu ko yàlla na toog mboolem ñi ajagul yàlla yàlla wërsëgal leen lu ñu ajee yàlla yàlla ubbi leen ay bunti xéewal mbokk yi ngeen xam ne ak bunt buy ubbi wërsëg la loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax aj dafay ubbi wërsëg kon soo ko mënee demal bërëb bi del ñaan yàlla sa wàllu àdduna ñaanal surtout sa njaboot waaye nga ñaanal jullit yi insha allah beneen bi mooy nga góorgóorlu fexe ba xam atte aj yi soo xamul ki la jege te xam nga laaj ko mu xamal la beneen bi ñu yëg ni jaamu yàlla solidarité la war a àndal moom lañu ko war a defee insha allah jigéen ñi maa ngi leen di dénk nañu moytu di dem di aji mel ni ay touriste dañu moytu loolu dafa bëri lool loo koy gis ci ay jigéen yi dem ak mu mel ni ñu ngi biir senegal mel ni ñu nekk marché Sandaga di xuloo ci de bërëbu jëndkaay yi di xëccoo ci bërëbu jàmbur yi loo xamante ni bii da nga ñëw ak li la yëkkati def ko ba mu jeex nga doog a def leneen insha allah allahuma ahdina fi man hadayt wa aafina fi man aafayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma aafayt wa qina bi rahmatika sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من walayt ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم